salaam salaam mbokk internet ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal di leen wax ngeen abonné ci chaîne bi waa dañuy doore information yi ak doomu pays bi nga xam ne mooy Memphis Depay Memphis Depay nag xam ngeen dafa nekk en manque de temps de jeu foofu ca FC Barcelone moo tax fi mu toll nii sax ñii di waa Atlético ñoom ñoo ko soxla pour renforcer li nga xam ne mooy seen attaque ginnaaw bu ñu ablee ki nga xam ne mooy Joao Félix waaye fi mu toll nii nag kii di Memphis Depay moom joxe na kàddoom ñi nga xam ne ñooy waa Atlético Madrid kon bu fekkee déggoo am na ci diggante Barcelone ak Atlético Madrid transfert boobu noonu mën naa am mu am. Navas nekk deuxième gardien ñi nga xam ne ñooy waa Paris Saint-Germain bu ñu sukkandikoo nag ci kayit journal bi nga xam ne mooy Mundo Deportivo kii di Navas dafa wax waa Paris Saint-Germain ne dafa bëgg a jóge foofu ndax kii di bu ñu xoolee. saison yi passé yëpp lim fa góolu bariwul saison ren bi sax benn match rek la fa góoloogul moo tax fi mu toll nii nag mu ngay demander pour jóge foofu club bu mel ni Al Nassr sax ñoom pare woon nañ pour recruter ki nga xam ne mooy Navas kon bu fekkee ne ñii di waa Paris Saint-Germain pare nañ pour jaay ko mën naa am mu signé ji feneen Pablo Sarabia moom nag nekk ailier wu ñi nga xam ne ñooy waa Paris Saint-Germain fi mu toll nii officiel na signé foofu sa Wolverhampton montant wu transfert bi nag mi ngi nekk cinq millions d'euros gars yi bu ñu jugee ci Pablo Sarabia dañuy dem ci ki nga xam ne mooy Nicolas Jackson nekk jeune attaquant u Sénégal di football foofu sa Villarreal moom nag ba tey bu ñu sukkandikoo ci kayitu xibaar yi kii di Southampton daanaka fi mu toll nii moom moo gën a jege pour signer ki nga xam ne mooy Nicolas Jackson vingt millions d'euros teg na ko ci table bi pour recruter ki nga xam ne mooy Nicolas Jackson ba tey buñ sukkandikoo ci kayit xibaar yi waxtaan bu avancé am na ci diggante ñaari club yi kon bu fekkee ne ñaari club yi trouvé nañ accord kon xam naa fi ay fan yu néew kii di Nicolas Jackson dana signé ji foofu sa Southampton